waaw tey jii ñun ñëpp a xëy déggandoo ci Sénégal moo tax tey ñëpp dañu yeew ak tiis parce que ko góor gu baax la woon góor goo xamante ni gëm naa ne ku mel ni moom jafe na parce que koo xamante ni da doon jàngale jàngalekat bu mag la woon parce que li tax ma ne jàngalekat bu mag la woon man xëy na ñun ndaw lañ mais war nañ war nañ roy ci kàddu yi mu doon li mu doon digle parce que ku nekk dañ ko doon seetaan ci conférence de presse yi fépp fépp foo xamante ni kaddu kaddu bu rafet bépp boo xamante ni kii da doon da ko doon jottali ñun si jeunes yi moo tax te ñu xëy yeewu ci suba dégg na góor gi làqu na. ndax li ma laaj ci sëñ Seex xam naa ci lu bari ndax taaliba sëñ Babacar laa sama maam Alpha Combaan fa la jànge boobu Alaaji Malick ci Alaaji Malick la jànge ñëw Alaaji Malick ma ne ko léegi dama nduttu Njaasaan nga tuubloo séeréer si mu tuubal séeréer si bi mu tuubloo séeréer si nag. ñom ñep doon musulman ba ci sama ñom pap ak sama ñom yaay ba ci ñun euh ah, seigne cheikh lu bari xamna ci ndax nitu diina la nitu l'islam la bëgg na doomu aadama bëgg na jobotam ñun ñi taluba cheikh xam nañ ko bu baax ñom ñep nak lañu yemale ndax kenn ku nekk sa këru diina la mais kenn ku ne fa soxol nek rek yaa nga fa bu dul sama fièvre bi tay kon maangi tiwaawon mais dama fièvre depuis fan yépp hôpital la joggé ma tok fi di xaar P6 fu mu jëm nak yalla ko fi yalla yeeram en tout cas dal ñun dal ñak nañu ñak nañu ndax lu bax lu gisoo tay asaman si nu mu mel ñepp joy ñepp sengem kem ndax lu bax lu muy defal doomu adama ak ñaan gi mu def ci aduna ba japp ñepp kenn ku ne yaang si tedd tedd biñ ñu si tedd nak yalla na ko yàlla arjana yalla na ko yàlla malaaka taxaw ñepp joy nañu nak xasaf lu ma jot a ko ci maam parce moom suñu sëriñ la suñu sëriñ bi nga xam ne ni am nañuy jàngit yu bëri ci moom parce que ñun tijaan toujours ñun xalifa dañ koy fonk bëgg nañ ko suñu xol sëriñ la bi nga xam ne ni sooy déglu ay waxtaanam rek mën na la yee lu bëri ci àddina parce que man li ma ci jot a jël lu bëree bëre fu ñu naan métier da nga koy mokkal bu ñu nee métier da nga koy mokkal bi may jàng métier maa ngi góor góorgóorlu jàng métier ba mokkal ko parce que nee na métier soo ko mokkalee kenn du la sikkal doo romb ba ñu ne la cim donc métier soo ko mokkalee rek mokkal nga lépp moo tax loolu am naa am naa lu bëri ci moom. wallaay ndeysaan manqué na sénération bi ñun ñëpp manqué nañu parce que maam Cheikh ay njàngaleem boo ko doon lim du du jeex du xaaj parce kaset yi mu def bàyyi fii benn boo ci jël rek euh, soo ko dégloo yow sa àdduna mun ci baax ak sa àllaaxira baax si euh, référence yi mu def si ñun bëri na parce que daayira mu tarsidin wala mu tarsidaat bi mu fi bàyyi rek ñun ñëpp euh, defaraat nañu bu baax a baax bëri na mag ñoo xam ne si sangu farata sax na ma yàlla baal ci kàddu gi mënuñu ko woon te ci daayira boobu lañu nekk ba yàlla defar leen ci ba ñu mën ci def li ñu bëgg lépp. mooy Sénégal yëpp moo ñàkk parce que perte pour pour la pour la musulmane des des euh, en en général le Sénégal hein, le Sénégal a perdu un homme de vertu un homme pieux un homme correct un homme qui dit euh, sur le Sénégal vraiment euh, bon vraiment je ne ressentir mais le Sénégal a perdu un homme le Sénégal a perdu un homme vraiment. ak li nga xam ne ni tam itam nee na ma nee nañu parce que du ma ne man kese nee nañu ñun nañu nekk ku dëggu nit da nga war a dëggu nekk ci li nga xam ne ni lu loo wax kenn waru cee teg baat donc balaa ngay wax dara danga ko war a saytu xool ko xam fi ngay teg sa tànk donc soo xamee fi nga teg sa tànk doo sonn ci àddina xam lu lu ñuy tere ak lu ñuy bàyyi lu ñu la né bayyi li bayyi ko lu ñu la né defal li nga def ko donc so topé ndigal euh, ndigalu sembi do mom ay waxtanom lepp la. lu tiss la ci ñun même man man man ci tarixa tidiane la bok mais bima déggé lool sama xol toyona na parce que amon na manque manque purman xamanteni moy lool kon nak pour man ci zone yi muy tidiane bi muy mouride bi muy layen bi ñepp war nañ war nañ roy ci mom ci diglé yi doon digle parce que góor gu melni mom tay jafena ko xamanteni ci jamono bu nek mom jamono bu nek mom da ko don wax parce que man ci luma mujjé mujjee dégg ci fan yi daf ne won nañ dañ wara sang Sénégal sang nak am xel deg dégg bu gàtt mënul dégg lool mais lool war nañ ci roy moy yatal xol yi yaatal xol yi rafetal xalaat yi ñu bolé xol yi tapé ko comme niko ko mam Abdou di wax comme mom non la don digle waaw euh, maa ngi ko bu muy wax ci jangat euh, ne adi euh, ya du force cadeau la donc mu mudon jangal tali yi ak sëriñ si si boppam ne adi ya du ko adi addiya nit mooy xool muy cadeau mu ñëw jox la moom sax daf ko xaw ragal donc loolu jàngat boobu moom ci lu am ci moom waxtaan boobu lu ma jàpp la ci moom quoi wa sa ce matin vers 6 h avant may buma génn. ci laa jot nouvelle bi affaire bi métti ma comme lu ma la wax rek ma xalaat suma yaay ndax moom mooy d'ailleurs sax ñoom ñu ngi wàcc seen gàmm boo xam ne gàmmu annuel ñu ngi koy defee à Gandiaye donc euh, moom daal moo doonoon sëriñam donc moom laa njëkk a woo d'ailleurs jaale ko nouvelle bi métti ñu trop quand même ñu trop que muy bépp euh, fépp foo munti bokk nouvelle bi métti na la ko waaw. vraiment métti lu nañ ko trop mais nag jaam ak yàlla ak dogalam ñun daal ñaan rek lañu mën euh, yàlla na yàlla suuf woyofal suuf ci kawam. xaare ko malaaka yërmande ci barke yant bi. man mi wax yow sax catholique laa mais affaire bi def moom métti parce que c'est un homme de donc bu ñu perdre un homme de Dieu du Sénégal day métti à tous les Sénégalais donc euh, ñun tey euh, en tant que sénégalais on vit. en frère nous sommes frères nous, muy musulman nous on vit en ambiance donc bu vous perte bu le vraiment Sénégal yëpp moo ressentir muy musulman catholique vraiment nous nous nous nous ñaan ñu nous nous ñaan accueillir vraiment nous sommes ñaan Nous euh, vraiment euh, euh, vraiment aussi vraiment aussi terre. waaw teeru si aju ajana yu gën a kawe waaw gën a kawe vraiment perte Sénégal dëggantaan la waaw vraiment ñu ngi koy métti trop trop trop trop trop trop trop trop mais mbiru yàlla kenn mënu ci dara. a ah, man day bi ma jullijee jumaa tey suba la imaam bi wax ne nan tari kii nan ko ñaanal quoi fukki lixlaas ak benn pour ñu ñaanal ko man boobu laa ko yëg. waaw bi ma ko yëgee nag am naa naqar yàlla ndax moom ku baax la woon waaw ndax. lu baax rek la doon digle waaw ku baax la woon waaw ban ko diglee nag am na naqarlu bu baax a baax ndax tey jii sax boo gisee bi ñu xëyee suba climat bi ni mu demee nga xam ne ku baax moo jën àdduna waaw loolu la wane ku baax la woon ñun nag xam naa ne dañuy góor-góor rek jéem a kii ci ay tànkam waaw ndax ku baax la woon loolu lan xam ci moom teewul murit lan nag wax dëgg yàlla mais lépp benn la waaw. Euh, tey Sénégal moo perte nitu diine bu mag donc la Sénégal a encore perdu benn nitu diine. almaktum moom ka ngay murit ka ngay tiijaan ka ngay ñaseen ñëpp d'accord nañ ne nitu diina la donc c'était l'essentiel donc jàngat yi ñu am ci moom mooy ay waxtaanam donc kenn du ko doon tardé personnellement je suis man murit la mais du doon tardé waxtaanam d'ailleurs sax saa yi ma demoon gàmmu champ de course fa laay toog déglu waxtaanam ndax euh, su ma yàlla doon àndal mooy sëriñam donc euh, moom biñ ma joxee nouvelle bi automatiquement euh, su ma yàlla ñu ko woo mu doonoon kum naw kum bëgg donc euh, perte nañ daal nit ku nit ku am solo ci diine bi donc. Euh, mu kenn mënu xëccoog euh, kenn mënu xëccoog yàlla donc comme que lii am na nañ ñaanal Sénégal yëpp vraiment nañ ko vraiment nañu ñaan Sénégal jàmm am fi jàmm sax fi képp ku yeewu Sénégal bi nañu ñaan jàmm am fi xiiroo ak ŋaayoo gi jaru ko Sénégal bi parce que ñu yëpp benn lañu ku nga xam ne yàlla moo ko teg moo moo ñu teg suñu kanam nañu ñaan ku nga xam ne ne bu na liggéey ba mission am jeex mu dem comme sëriñ bi mu demee vraiment ñun tout Sénégalais loolu la ñuy xalaat loolu la ñuy ñaan loolu la ñu ñaan yàlla vraiment loolu laa amoon lu may wax si vraiment sorti euh, sëriñ bi nga xam ne moo ñu fi bàyyi sëriñ bi nga xam ne moom la yàlla jël yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla teeru. ngeen ko mais man maa ngi ni barki sëñ ka si bu dul woon sama feebar man maa ngi ci dëj ba tey maa ngi tiwaawoon mais xol ba dafa dem mais aussi tànk yaa ngi fi waaw jàng yi ma jot jàng ci moom maanaam li ma la ko waxee sànq rek moo ci nekk sëñ seex mosoo taxaw ci moom mukk nga taal dékk sa loxo nga ne nangam bii laa soxla te sa aajo fajowul waaw kooku man xam naa ko ci moom xam naa ko ci sëñ Mansour ñoom daa mayu yàlla la ñu am te njoboot gi mu fi bàyyi nag yal na leen yàlla taxaw ci seen bàyyi jaar doomi yalla fa jaar ñoom Moustapha Seck ñom abib ak ñom ñep yalla lañ fa taxaw taxawul njabot bi waaw loolu rek laay ñaan yalla yalla jàppale ñu may ñu fanu gudd ak wér gu yéen ñii nga xamni journaliste yi yàlla may leen doole may leen katan may leen lu ngeen mëna tok wax ak nit ñi ba yalla jappalé leen. bi mom wax deug yalla même so xolé asaman bi sa woné nako parce que man bu may xey matin bi tay dama gën sama buntu kër taxaw ben xalé fëgg ma sama xarit la mune ma pap mbaa yëg nga lu xew ma ne ko laal la si la ma yëgee lu si la ma yëgee wax ji ma delloowaat sama bagage ci biir jàpp julli ñaanal ko doog a xëy donc nekk na nit ki nga xam ne ni euh,